kon nag dañ ko war a sàmm sàmm gën a weesu luy si ndigal ak bàyyi tere te yoon wi la mu ngi si loo xam ne nii lu ma ta waxal te sunu càggante rek ndax dërul woon sunuy bàyyi dërul woon sunuy maam kon bu nu dalee doon ñàkk jóg rek ndax ba ko sëntu waay sos ànd ko sunu maam yi lu leen dégg nañ ko lu leen gis nañ ko lu leen def nañ ko waaye faaluwuñ dañoo bëgg yàlla topp sëntu waay rek lu leen ca fekk ñu fab seen sëriñ bi kanam jàpp ko ne ko cas sànq ñu gën a dëgër lañ nekkoon gën a sàmm lam lañ dénkoon ba muy juróom-ñett a ñu te taxuñu fi yokk te taxuñu dox yokk lam lam lam ñu di ko sooxal sax ci sa den ñu leen toroxal di leen dóor nangu seen naat di leen tojkal di ñu way ca li ba sëñ bi jël ñu ko dellu si yëfee gën faa dox ñu ne si ko ñu gën a dëgër ci lañ nekkoon ñuy jóge fi di ko fekk gànnaar ñu leen doog di leen dóor di nangu seen alal di leen rey mu jar na dund ñu yóbbu ko jol man ne ñu dégg fa fekk loolu ñu dinu ko def bala ngaa dem ñaan kay ñu leen toroxal ko def loolu ñu muñ ko mu dikk njëriñ ñu dar ko ba ñu wujjee ko daroon ñëpp tàmmal si ñoom bokkal bàyyi di sëñ Yoro Faye tekki rakam ñëpp wan ñu ko fab Cheikh Moussa teg seen kanam def ko mu sëñ Mourou def ko mu Cheikh Lo Khadim aar ko sàmm taxaw temm di seen dëri son daara kenn ñëwuta yob yoon kenn ñëwuta ñaaj yoon bi Cheikhul Fat jóge na fii Darou ci toogal fi ñu toogoon Cheikh Moustapha ci Touba ci wax ñu ñaaw ak ak ak wax ba mu demee dafa daje Touba gépp ne nii nga nekk Moudou Moussa moom fi taxañu te tey laa bëgg mu yem ba mu waxee ñoom ban ka seen njëldi la ca gënoon njëldi gën saa ah ruyu lam yi gën seen ñaaw lam xam naa turam dama ko suturaal maa waa mën na maa jaar ci tur dana ñokket na ko man de ba nga duggee dëkk bi laa summi suma tubéy damaa teexlaayu ndax xam naa borom tubi ñuul tubéy yenn ci dëkk bi tey dootoo dégg sama baat da toog nañ ci njëriñ di ko wax lu ne ci ba mu ba ba mu ba mu Cheikh Abala man si mu tedd ma ne ma Cheikh Moussa toog na ma ne ma sama der bi di bu mbuus dootuma def tepp ndax jam-jam ba mu dajalee ñëpp léegi nag li ngeen wax lépp dégg naa ko la mu Cheikh Moussa waaye lépp dégg naa ko ay dama bëgg xam ne fii ma toog war fee toog a tax yàlla teg ma ndax yéen ñëpp amu ci kenn koo xam ne mën nga am benn daraja bu dul sëñ Tuubaa liggéey loolu mooy sëñ gërëm na te ba ngeen di liggéey tëdd moom la ma doon liggéey nii da ngeen jib lu ma jib ngeen liggéey muy liggéey kër gii ma nekk doon na ko tey néeg bi ci dëkk bi ci gën maa ko defal maa ko takkal Seexul Xadiim laaj bi fi gën ci kër gi maa ko fi indi bi gën woo ci kër ci kaamil bi gën koo rafet maa maa ko bind mi ngi te sama naaj bi sama sax lu ngeen def def naa ko te moom ma jur tudd leen jur mu foofu ku fa àgg xam nga ne fa nga fa nga fa nga àgg metti mag ñi daal ko loolee di dox yoon wi kenn yëgu kenn mësu ko ñeme ba Cheikh Moussa ñu daal seen fal ci loolu suñu bàyyi dar ko yoon wi dégg baat bi benn ba Cheikh Abdoulaye dikk ñu dar ko nu ñu fi def ñu dar ko baat bi benn lu mu wax kenn du ci teg baat ñu ko doon ràññee ràññeel ñëpp alku nañu fi kanam adduna ba Cheikh Abdoulaye ba Cheikh Sall yu dikk ay yéen nag mag ñi jeex ñu ne sëñ lu ne lu tax lu neex def loolu laa bëgg ngeen xam du mën a ku doon taal bi doon taal bi ku doon doom doon doom ku doon rakk doon rakk te yem fa nga waree kilifa gu lewet nag day àll ak nit te suñu yaari kilifa yu ñu tànnal dañoo lewet seen lewetaay bi nag ku leen ci topp da nga yàqule mu Cheikh Mountakha ak Cheikh Abbas mi waaye na ngeen xam ne seen lewetaay ba ku dund nañ ci bàyyi. maa ngi woo képp koo xam ne la nga yor Sëñ Tuubaa ko jox wala mu jox ko sama wala mu jox ko sa baay nga doon ci mu te doonoo ci dara maa ngi ñëpp yem dun dara suñ su teel ngay maam yi yéen ko sago ñu bëgg ñaaj yoon ñu toog di xool rek maa ngi ko tàbbale Sëñ Abbas mi suñ kilifa bokk na ci mag ci yoon tey ak Cheikh Jëmb Fall xalif général de Baye Fall ak Cheikh Abdou Latif Jenn moom Sëñ Isaa ñu leen mag yoon wi tey bëriwul ak mboolem doon kilifa yëpp ñun ñëpp nañ gisee te xam suñu bopp te takku te taaru yoon nen ko su na ko suñu bàyyi woon ko bëggoon ñaar ñu duggaale ko nga ko sant Mbàkke nga ko sant Jaxaane ginnaaw ki la benn baat la moom lay doon sëñ bi taxaw leewataa bii na gis ko ci topp xew-xew yi sàmbarkeem ci oto yi nañ leen wóor dootu fi am to ba mel mooy kabi aduna mel ni zakar Ndakaaru përi do ta mu ma ta man ma ceer maa ko wala man sama bakkan du ko fek ma ko am jëm wona kilifa yon yëpp na ñepp taxaw Touba aw kartu fi fale Touba ak sëñ Touba ak daara bi kat yi ak daara bi ko dar aw kartu du fal nit ab bi fal du fat nit ba tu sëñ be fi dox to ko ko wedd mi ngi ci kanam danañ ko digale wo wona kilifa yon yëpp nag na ko ni takku ndax buñ ko dee ñu ñaar yoonee yoon nu toog dee kër yaa kër yaa xam du ñuy gor noo war a aar yoon ñii doon kilifa yi ñii di suñu kilifa ci ko tàmbale te man man man maay premier seen seen général te fii ma dëkk laa koy tàmbale daaru mu teg daaru man xaw mu fenn waaye foofu carte fal nit mukk mukk mukk mu aduñ ko wax diplôme du ci fal nit te tuwaay du du am li am du am loolu booy ba ngeen xam kuy réew des na leeru kuy doom des na leeru kuy rakk des na leeru yow nu fowukaay benn baatu fi ne sëñ Tuubaa ko lu fi ne sëñ Tuubaa ku am dara léegi ci yoon bi lu sama bàyyi la génn sëñ Tuubaa lu sama maam la génn sëñ Tuubaa kenn defu fi dara lu taali bi di taali bi aw fay taali bi aw lu am taali bi amoon bi sa doyokk waaye doon te xam ngeen ko seen bopp ñu du ay taalibe te bu koy taalibe dugg ci biir dëkk ne bëgg ko yàq bëgg dugg ci biir yoon bëgg ko yàq danañ ko diggaale ñoom woo naa kilifa yëpp na ñëpp jom def arma na na ko suñu maam yi defoon aar seen tuba aar aw njabootam gi taxu suñu gaaw yoonu dox na mu doon doxee la nga xam dootu am mukk mukk mukk maa leen ko wax ku fi bëgg nekk te bëgg fee nekk ab jàmm na nga fi nekk jub ak yar teggi te xam nañ ñëpp xam nañ lépp dara mu ndax kanam gu nu waay xam nañ fa nga ko jël xam nañ la ko waral wax na jël joti na pay la yow ñu bëgg noonu nu toog di lekk ceeb ak naa nangu addi duñ ko def loolu bàyyiwuñ si kilifa yoon yëpp laa woo kenn ku ne nangu daan arab sëñ Tuubaa fa nga ne te balaa lu fi texew kilifa yëpp daje baat bi benn nekkal fi sëñ Tuubaa ki ki fi sëñ Tuubaa ko kil dëkk bu nekk fa nekkal sëñ Tuubaa baat bi yoon wi dox na mu dox ku ko mëntul ñu diggaale ko yow te yéen gone yéen jur di gone mbàkk bay sama sama balaa ko tàmbale yéen ñëpp na ngeen bàyyi taax bi te ñëw fii seen dëkki maam yi sëñ Tuubaa wutal na leen lépp ñëw ma ñu ko fi def ci bara bi seytaane yi di di jaxasoo loo indi loo indi yabal ge ci foofu la sox foofu la soxi ko bàyyi leen taax yi te bàyyi ndakaaru te ñibbi si fii te bàyyi forme caaxaan yi nit ma balaa doon seex day doon tël bi seex kenn ko fi def ba mu demee kenn mënatul seexal ku la ko wax lu am chef du tappale du plan du politique ñi liggéeyal Sëñ Tuubaa ba am ko am nañ ko ñu ko amaloon dootu ko mu ku ko ku ko am te sa te la la ko mën nga wacc ko mu Sëñ Tuubaa nangu yëfam cheikh bu fi ko rek dañoo bàyyi lañ lañ la leen ko mayoon kon nag nan dellu ca leen mayoon lii te jàmm te jëkk teel ci def lépp suñu yoon bañ cee ne gannaaw loolu maa ngi dénk sama bopp di leen bi suñu bu leen wax mukk bu leen tontu mukk ndax kuy wax danga am jot kuy tontu da nga am jot wéy leen rek nan dem rek wax amul njëriñ tontu amul njëriñ kuy wax da nga am jotu déglu bay wax da nga am jotu wax kuy kuy tontu da nga am jotu déglu bay tontu bu leen wax bu leen tontu nan def na suñu maam yi defoon lan déglu ñu ko dégg lañ daj ñu ko te faa duñ ko dañu dañu dëgmal fi ñu dëgmal rek sëñ Tuubaa dëgmal yàlla ak yonent bi ñu topp ci moom dëgmal ko rek ba am li ñu am loolu buñ ci nekk daar bu ci mën dara waaye pomme ci yoon ak ak lu neex nit wax loolu moom dana dañ incha allah dana dañ soo mu taxalee waxtaan bi des des ku topp ku ci jàdd si loo war a dañ ko diggaaleewu kilifa yoon yëpp ne ku la jóg doon armé taxaw fa nga war a taxaw na sa baay taxaw na sa maam taxawoon dara du yàqu waaye lekk addiya ak nangu addiya ak noos ak tabax ak takk jigéen tax bayut loolu amul benn yoon na kilifa yëpp jóg takku na su maam yi doon waaye armab Sëñ Tuubaa nu doon ko armab Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa du fi jóg mukk te lenn du fi dox lu baatam ñu ci biir yàq nag dees na ko diggaale ak ñoom muy fii muy feneen loolu laa bëgg ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xam ko li ci sax bu benn soxla te yéen doomi kilifa yëpp ngeen bàyyi Ndakaaru bàyyi taax yi ñëw leen fii bër bi yi sunu maam yi ba ñu toj àll yi di réseau gaynde ak bukki yi ak jinne yi rab yi di tuur seen sax bëggoon fa ñu rawale seen diine ak seen job ak seen bëggee tax ba mu ñoom bi ñu ko defee ba toog fi képp des na nu ko fukk dem di fekk saytaane saytaane ki ca barama bi ak nitam ya tooñ kenn tooñ noo doon suñu bopp nga mën ne noo xam ba tey ji laa ko noonu laa dem bépp barab bu ñuy tabax ci Ndakaaru ay soaan ak xam nga yooyu ku fa wooteel lislaam maa lànk bu fa wooteel lislaam doo fuy doo fuy yaa ngi nii kooku fi jéggi rek foo am woo ma lànk sa yàlla sàkk nañu pays lislaam bi nii seen tubaab sàkk nañu lu ñu wooteel lislaam nañ ko fa woote lu ñu di xayma ci taax ak i saal ak i lan saal bi mooy lan loolu du ko bu bëgg sëñ Tuubaa bëggoon ay sato nu daaw nu seex yi fa tabaxal ko sato yi làkk yi ci war saay ak yi ci fantoon bëlëg dellu seen na kon na ko def fooy ak noo si taxuloon daa bëgg ñu jaamu ko bi ci dëgg loolu nag moom kenn wax lu mu kenn soo wax maa ko waxal sangu te ku nekk ku nekk ci yoon te am jom daan ci am ci amul jom man naa ci ne ba ba mu jeex takk man waaye cab gi cab cabe booti yoon moom baatu moom dana dem su waa du kàddu adduna benn baat mayatuñ ko nit wax ko tuba ku Sëñ tuba te kuy Sëñ tuba nu def Sëñ Tuuba dañoo góoriwul rek Cheikh Ibra Faye moom Sëñ tuba bokk baay ñoo bokk lay maam Cheikh Anta noonu ñoo bokk lépp te teewul ba Sëñ tuba laax dañ fab Cheikh mu Faye teg fi kat def ko muy Sëñ tuba ba Sëñ tuba nekk dañ ko def muy Sëñ tuba sëñ Moodu ma mënu ko moom sëñ Moodu Awaar ñoom ñëpp fa yëpp topp ci moom loolu lay dox ba ak si suñu bëgg fee yàqu beneen lawet nag lu ko neex wax lu ko neex def ci kaw lan lewetaay suñu taxa bii rek ak lewetaay suñu abes bi tax ñu bëgg yaa ñaaj yoon loolu dana dañ ba set bi bàyyi man ceeru na taali bi doon taali bi dëkkandoo doon dëkkandoo ku ku wut àll yi si wutum àll ñu fi bàjjantu lépp li ñuy bàjjantu fii lañ ko am benn ci dikku la muy xam nañ leen bu doy dikk Tuubaa nag jaay suufu Tuubaa si باب يجي بالك في سنجاب بام خالد تبقى خيخ سنجاب تشوف تدري فين خم لكم بام لين لو ريب دين رودي نفس نيب دين كدي قالوا فاس فاس خمني لو واحد يبي يسمع كم فاجي ريد يسمع فاجي لو أنا لعب الدنيا بكم كم فواي ما نحن كنا خم لهم تيارو كنا كنا خم لهم لكن بينهم لبسي خبر سنبون كان بقدر يجمع الدنيا te mu fi jóge ji ku ma wóotu yàlla ko xam waaye mag sama rakk sama doom yi moom la ñu sàmm ba yow ma xeyam te faaw yàlla du fi bàyyi ku koy sàmm seen tubaab te dëkk bi yëpp noonu la kenn mënu koo róobu dëkkin wu jub laa bëgg gendarmerie bii ma indi yi li tax ma indi ko le simple waxoon rek ba mu indi gendarmerie daaru tubaab andi xaj ñi ñu ñu jëm ci bi di ko toj am kilifa ku ko yor nak ko xaj yi ngeen di dëgg mu ñu ko xajee xam xaj xaj rek man sey seet xaj nga xajee xam xaj yow ko commandant gendarme yaa yaangi tok ci mbolam ma la jox ndigal na lépp lu xam ñu def nak ci dëkk bi lu lor nit wala wala lu jubul digalé ko koko duma ko wala su ko bëgg wala nang wax ma digalé ko koko ci sama doom la ko tambalé ab jullit day doon jullit di jëf-jëf jullit yéen ko mu la mu yéen gannaaw loolu lii nga ñëpp bokk ci dugg dañ dëkk tedd te dara war lañ ci lu mu xëy gis ko muy ndox mi bëgg naa ñëpp fay ko fukki fan juróom laa yow yow commande moom laa la may bu bu bu mu gën seeti benn tuur bu fay benn kepp benn tur bu fay rek bëggatuma ko gis caaxaan rek la kenn ku ne yaa ngi fay courant kenn yóbbu kër ko dem la fukki téléphone nga fa du set ñuy sart kenn yóbbu du seen ko jënd lu lu fukki juróom buus wax bi commencé ko ñëw di du diyaas yow nga duma ko fi ci kaw la ab gouvernement du yor aw aw aw aw nit yoru réew réew moo gis mu delloo ko waa réew maa ko delloo ko dañuy def seen dawaan ba mat sëkk laa seen droit ñu defe leen ba mat sëkk réew dox waaye naa laaj lu ma sama droit lu ma lu nga aw lu la nga ma lu la nga manqué naa manifeste naa def nii te li la li la yoon teg te nangoo ci dara li sa dawaan defoo ci dara loolu bëntu dox nit day wax dëgg wala moo ko réew mi waa réew mi rek ko war a defar lii waxtaan loo xam ne bis bii tey bisu suñu waxtaan faaw ñu wax ko la ca des mooy ni ñuy ko loolu yow Macky bi takkal fas yoo xam ne woo ci war da bu ci war wel te bul bul noonu bi ñu bëgg noonu ak seen tubaab bëgg laa noonu la ay noonu lànkal bu ko nangu tey bu ndax say noonu rek la koy fexeel ak soppi ak soppi duy dof soppi bu dub def nag noonu bu nitee ko gën ku lay fexal fexam fexamu jaan da nga xam sëñ Tuubaa ñëpp ko furu waaye am ci moom rek liggéey lu ko te liggéey nga ko liggéey bu ñëpp gis bu kenn mënatu la far feeg yow ma xiyaamal la ko fa ilaatu wa Macky Sall ko fi defee nag la ñuy wax ku mu neex ku naqari te bi nga ko liggéey la añal lan ndax bi nga xëccoo say morom jot nga te jot ki jàmm ak salaam kon suba sëñ Tuubaa fay na la nga defoon Tuubaa loo ca bañ yokk loo loo def ci digg kër yi diine yi loo ca bañ yokk ba la kenn seetu si kër yi diine yi nga xam ab tedd ak nguur bu waxtu yàbbee sël ne yàqu nan buñ la fee ci bu sël fas wi ci def mooy alxuraan na nga wattu alxuraan alxuraan bi ñu di sóob dee te alxuraan yàlla wan kay di leen jàpp ko defee sa yoon nekku te boo wutu alxuraan alxuraan am na keneen ko ko watu yàlla dénk ko yoon دنكو صعب دنكو ولي دنك ما قدرت إن أنا هنا سناسك وإن هذا هو العكس طب يا له تكلم نقول ما نك خمر جنيش تيار الأنفاق أملا ما كان قد نقل سلام أتى بس من مسكين يعني تيار أنت بس الله سلم نكره بيجو كمان كدين بلق مسكين يعني تا باهم بس أنا كتير مسكين يعني لفان أي حال يوم لفان لفان يوم لفان لما أم جهلو نك يا له نك سلام لما والله فنبدأ نكيدان أجنيش دعني lu waay gëm na te lu waay na ko jàng te lu waay mën a jàng lu alxuraan ba xam sa diin jaamoo ko yàlla bis na ñëw nga rëccu ak loo mënoon ab loo ak diplôme ba mën am alxuraan bi ci jën ñoo yàtt yooyu yaar maa ngi la koy dénk la te des mooy loolu neex dafa sañ nga ko mën nga kooku la ko wax lànkal fas yoo ci war na nga daan li ngay def ci réew ci la yàlla xet ni soo xeet ndax sa yàlla jiital fi kanam xeet am ca jom te def ko ngir yàlla ak dimbali xeet yi ak liggéey fi loo xam ne bu yàlla fay la ñëpp ne ñaa fi defal seconde fi nekkoon du jullit te teewul kilifa yi diine yëpp ànd moom te dañoo sonn rek la ñu àndee woon de luñ ko a soof soof ci lu jëm ci diine mu ne diine du ma ci dugg du ma dugg ci diine du ma dugg ci lañ ma def damay liggéey dem sama yoon yamal foofee professeur la jéem tamit toog leneen loo leneen balaa yàq dana suuf rek bëgg bëgg laa bëgg laa fenk di